toujours dans votre acte du jour de ce 19 juillet 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ca chamboulement bi nga xamante ne nañ ko jamono ji ci diplomatie ginnaaw bi ko gisee ci wàllu armée wàllu gendarmerie jamono ji nag ci wàllu diplomatie la ñi nga pas ne ñoo représenté le Sénégal foofu ca France ci wàllu diplomatie ku ci mel ni Jules Diop di ambassadeur itinérant bu Sénégal auprès de l'UNICEF qui dit Mansour Eliman Kane ak kii nga xamante ni Amadou Diallo ñom ñep dañu nekk ci viseuru ki nga xamanteni moy président Diomaye ak euh, premier ministre am lool dal lepp lo xamanteni xamante nañ ko su suñu source bi nga xamanteni ni ñu ko jox ba nopi Jeune Afrique dal di koy relier muy benn nouveau régime bo xamanteni dañu planché wu jëm ci benn mercato diplomatique ginnaaw intense bi am digënté ay départ jaarle ko dal ci ay chancelleries prestigieuses ginnaaw lool dal lepp lo xamanteni dal mëna commencer par France ku ci melni di Amadou Diallo di rak ci ki nga xamanteni moy eh, directeur général du conseil économique et social di Abdoulaye Daouda Diallo depuis que mu nek fofu nga xamanteni consulat bu Sénégal bu France di militant alliance pour la république di APR di frère cadet di Abdoulaye Daouda Diallo bu président conseil économique et social environnemental mon ci Bopam war nañ ko mëna remplacer ci poste consul général du Sénégal Amadou Diallo nag sasewul d'ailleurs di répéter que lepp lo xamanteni tay ay visiteurs def nañ ko pour ñëw xool ko moom pare na pour quitter li nga xamante ni mooy fonction yi bu mu ko xamalee ñi nga xamante ni Jeune Afrique jour yi daal nga xamante ni également dañ ko compter pour ki nga xamante ni mooy El Hadj Maguette di diplomate bi nga xamante de carrière jóge lool kii di président Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni doonoon na conseiller diplomatique bu ambassadeur bu Paris moom ñu nommé woon ko le 10 juillet 2019 moom aussi ñëw na boucler lu toll ci juróomi at ci poste bi nga xamante ni mu doon benn durée limite boo xamante ni moom la ñu convenir de le ko tradition diplomatique sénégalaise pour ben ambassadeur bo xamanteni nek na ci représentation diplomatique suñu xoolee li nga xamante de remplacement Souleymane Jules Diop mu doon représentant permanent bu Sénégal foofu UNESCO depuis juin 2019 mom également aussi jamono ji éternité am suñu sukkandikoo ci Jeune Afrique doon na loo xamante ay action le pourtant mën na permettre inscription ci plan national bu mel ni ceebu du patrimoine culturel immatériel boo xamante ni humanité bi def nañ ko de part depuis que plusieurs années jaarle le daal ci ay envie li nga xamante départ am ko ancien journaliste bi nga xamante ni tey dafa secrétaire état du au Sénégalais de l'extérieur di Macky Sall amul won ben yon bo xamanteni ni na que king nga xamanteni ex président amon na dal qui di koy maintenir ci postam ginnaaw bu mu décrire lepp lo xamanteni en privé jaarale ko ci exilam ki ñu ko xamal di Jeune Afrique suñu démé ci États-Unis enfin qui dit ambassadeur bu Sénégal fofu ci Washington mom aussi war na changer. tête ginnaw na nga xamanteni remplacement King, nga xamanteni moy Mansour Eliman Kane di ancien ministre des infrastructures puis, du pétrole ginnaaw biñ ko nommé li nga décembre 2019 qui capitale américaine Bobu gis na plutôt que les lo avant que muy dugg ci gouvernement en juillet 2014 occupé ay fonctions de directeur li ak investissement foofoo Afrique ak li nga xamanteni moy banque mondiale moy chamboulement dal bo xamanteni fan yu néew dañ ko gis foofu ci walu diplomatie ko ci melni Amadou Diallo consul Sénégal bi nek France Souleymane Jules Diop Abdoulaye Elimane Kane nekk foofa ci Washington ñom ñep ci viseuru président Jomay, ak premier ministre am